seen wàccuwaay bu baax a baax euh, ñu leen di wax ngeen abonné wu ci seen bi nga xam ne mooy explication wolof iPhone ngeen abonné wu ci seen bi bés tous clas bi bépp vidéo boo xam ne dugal ko rek ngeen jot ci incha allah tey nag dañ leen indil whatsapp whatsapp su fekkente ne da ngaa yor iPhone boo xamante ne ni iPhone 6 plus wala 7 plus wala iPhone boo xam ne dafa am empreinte dafa am bouton bi nga xam ne empreinte la nga bëgg sa whatsapp nga di ko côté saa soo si ji dugg mu laaj la code bi empreinte bi nga teg ko mu daal di dugg ci biir whatsapp bi loolu soo ko bëggee dangay ngay abonné ko defee ñu wan la euh, app ñu wan la whatsapp bi naka nga koy tëjee euh, ba ci topp mooy euh, même bu dee Android sax bu dee Android boo xamante ne nii am na empreinte yi ci ginnaaw mën ngaa teg sa loxo foofu teg ko ci wat activé ko ci whatsapp bi nga xam ne saa soo tegee sa loxo rek sa baaraam rek day ko comme ni ngay tegee ci sa baaraam ci yeneen application yi mu tijjeeku whatsapp bi moom da koo am uniquement pour loolu pour pour pour pour pour baaraam bi whatsapp bi daf koo am uniquement léegi loolu soo ko bëggee xam da ñuy topp bu ko defee ñu expliquer la ko wan la ko wan la ni ñu koy defee da ngay abonné wu ci seen bi léegi da ngay dañuy dugg whatsapp whatsapp mi ngi nii boo duggee whatsapp gis nga nii lay def danaan la faaw nga teg baaraam bi mu doog a tijjeeku léegi dugg nañ suñu whatsapp léegi gis nga nim def dana la faaw nga teg sa baara empreinte loolu nag bi ci biir whatsapp bi lañ koy réglé pas nga télécharge sa ay apolog war a yooyu noonu mais bii whatsapp spécial moom moo ko am nga xam ne faaw nga teg sa empreinte muy doog a tijjeeku léegi teg naa sama empreinte muy doog a tijjeeku léegi dañuy dugg fii compte loolu boo ko bëggee activé da ngay dugg fii compte boo duggee compte nga dugg fii confidalité boo duggee confidalité nga wàcc ba ci suufa suuf fii nii nga wàcc ba ci suufa suuf boo wàccee ba ci suufa nga bës ko man dama ko activé mais boo duggee boo ko activé wut nii lay def léegi nga daal di bës mu daal di verte bu verte xam ne xam xam nga ne activé na touche bi activé na nga xam ne saa soo tegee sa baaraam rek euh, nga xam ne day whatsapp bi day day tijjeeku soo génnee fii danaan la boo génnee même pas une minute mu tëju même pas quinze minutes mu tëju même pas une temps mu tëju mais da nga naan ko immédiatement immédiatement mooy mu saa boo génnee rek nga xam ne whatsapp bi day tëju yéen ñi nga xam ne te tamit da ngeen yor euh, iPhone tamit dinañ leen won euh, naka ngeen di defee seen iPhone ba nga xam ne bépp foto bu ñu leen envoyé rek du wàcc seen galerie direct tant que en enregistré wu leen ko ak seen bopp ngeen xam ne lii su ngeen ko bëggee activé ni ngeen après ngeen di génn su ngeen génnee après sa whatsapp su fekkee dañ lay envoyé ay vidéo ay foto muy wàcc ci sa téléphone directement da ngay dugg fii boo fi duggee lii nii da nga koy fekk mu activé wu man dama koo dindi woon enregistré dans le dans l'appareil gis nga euh, fii nii da nga koy dindi soo ko dindee dootul wàccee ci sa téléphone directement tant que woo photo bi wala vidéo bi waaw sama gars yi kon ngeen abonné wu ci chaîne bi bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek ngeen am ko incha allah aj incha allah